yenn askanu senegaal soppe yi góor ak jigéen mag ak ndaw yéen ñi may seetaan ci àdduna maa ngi leen di nuyu lu mat at a ngi nii bi ma nattu ak ndogal dale ba tax gisatu leen ma ci lànguk musique gi wayatuma tey am na mbégte ak bànneex yu waxtaan ak yéen ci bés bii ñu jagleel jigéen ñi ci àdduna bi bés bi nag am na solo lool ci fànn yu bari ndax ay at a ngi nii may xeex àq ak yelleefu jigéen ñi saa su ne teg ci bés bu am solo bi ñu jagleel jigéen ñi ci àdduna ma fas yéene yëkkati sama kàddu ngir di leen sargal te di leen firndeel sama pasteef ci seen wet saa su ne duma mësa tàyyi te di jëf lu leeni dooleel ma dellusi tey di feddali sama ngërëm gu amul àpp ci yenn sama waa réew ak ñi ci biti ci taxawaay bu ngeen ma taxaw ba may tut tànk ba tey seeni ñaan seen cofeel ak seeni ñaax tooy na sama xol waaye nag li gën a tooy sama xol moo di mbégte gi ngeen wone fépp bi ngeen yëgee ni damay dellusi ci làngub musique gi ngir bégal leen loolu nag dafay dëggal seen mbëggeel ci man jërëjëf ma leen di bëral ne sama wér-gi-yaram gannaaw yàlla ak seeni ñaan jëm na kanam ndax liggéeyu docteur yi orthophoniste yi ak képp koo xamante ni nii boroom xam-xam nga bu màcc ci faj tawatubaat baat alhamdulillah ma di leen firndeel ñoom it sama ngërëm ndax seen yërmande ak seen taxawaay ci sama wet booba ba tey ni mbokk amul benn àpp loolu lépp nag di ko waral ngir ma dellu wayaat am naa ci yaakaar te mën ngeen cee am yaakaar yàggatul dara bu neexee sunu boroom dingeen ma gisaat ci lànguk woykat yi yii di suñu métier mu di musique tëjuwuma woon di jooy déedéet dama doon liggéey ndax gëm ne lépp lu dal jaam lu metti su ko xoolee ba ca biir njariñ a nga ca biir moo waral li muy metti metti yépp ma dem yokki sama xam-xam ci musique jàngiwaat piano ni ngeen ko gisee ci sama clip bu bees bii di tekk gi soo nee tekk nag tekk won la yoon tekk gi nag won na ma yoon wi nga xamante ni nii moom laa war a jël ba saa yu ma dellusee mu gën fee neex ndax bu boobaa dinaa indi yeneeni mënin ak yeneeni feem ci musique te loolu yépp nag li ko wundit mooy seet rekk nu ma leen gën a mën a bégalee ba ngeen gën a bég ci man seen doom seen jigéen seen artiste ma di leen ñaan ngeen dalal seen xel te yokk seeni ñaan yal na yàlla mottali yéene yépp maa jeexal samay kàddu te sargaluma bépp jigéen ci bés bii ñu leen jagleel naam baax na sax waaye benn bés rekk doyul ci sargal jigéen jigéen ñi dañu leen war di sargal bës bu ne ndax bës bu ne jigéen ñàkk bakkanam ci matu teg ci fu ñu toll di wane seen jom seen njàmbaar ak seen xarañ ay jàmbaar dëgg lañu moo waral may sàkku ci suñu njiitu réew yi ñuy gëna dooleel njàng mi rawatina njàngu xale yu jigéen yi te ñuy gëna moytu di leen maye ci néegu sëy te seeni at mëtewu ko njàng mu baax rawatina mu jigéen muy jëmale am réew kanam rawatina ba ñu amee seeni diplôme ñu tàggat leen sunu ëllëg gu taaru mu ngi ci loxoy jigéen ñi nanu leen gën a delloo seen àq ak seen yelleef gën a yokk seeni cër ci sunu biir société yi maa ngi sargal bépp jigéen tey ñaan jàmm ci àdduna bi rawatina jamono yii nga xamante ni nii xeex bi tar na ci fële ñu naan Russie ak Ukraine di ñaan ci njiiti ñaari réew yooyu ñu dajaloo waxtaan ngir jàmm dellu siwaat ci gox boobu mbokk yi ci kàdduy jàmm yi laa leen di tàggoo dellu di leen firndeel sama ngërëm tey dalal seeni xel ndax bu soobee sunu boroom yàggatul léegi ngeen gisaat ma ci lànguk musique gi yal yàlla def jàmm ci àdduna jërë ngeen jëf